gannaaw bu ñu amalee édition bu njëkk ba ci atum 2022 bi les revues annuelles de la feuille de route de l'électricité doon prox ndoll ci gouvernement bu Sénégal ak i partenaire am ngir ñu nat tolluwaayu bii le projet ci atum 2022 jàpp 2023 at mu jot dañuy jéem a xool ak état bi ci euh, doxalin bi ak ci engagement yi nga xam ne jëloon nañ ko ci fan lañ ci toll tey jii nag moom ci euh, niveau d'engagement yi téeméer boo jël daanaka am nañ ci satisfaction ci li nga xam ne mooy euh, juróom-ñeent fukk ak ñeent ci exécution financière yi te lépp sax wër ci lu tollook téeméer boo jël ñeent yu tombal juróom. mu di projet bu ñu tëral ci lëkkaloowu États-Unis ak Sénégal ngir yombalal courant gi bépp sénégalais. waaw waa États-Unis di waa tugal ñoom jot nañoo fournir ci Sénégal ci projet bi lu togloo rek euh, juróomi téeméeri milliards ak juróom fukk projet bi nag lu am solo ci Sénégal waaye tamit ci euh, états ndax dafa gën a delluwaat ci ñu gën a euh, yeesal secteur énergétique bi. projet bi le na mu wàññi njógum électricité ba ñëpp mën cee yem. yoon ni euh, gouvernement di Sénégal daf ko tënkoon ak euh, Millennium Challenge Corporation pour xool naka la ñuy defee ba nga xam ni lépp loo xam ni dafa dem si maanaam euh, njëgu électricité bi ñu mën koo xool ba yamamaay ko. mu di lu am solo ci plan Sénégal émergent wàllum courant. bokk na li gën a yombalal développement wu réew tey wàññi inégalité yi gouvernement bu Sénégal fas yéene fii ak atum 2025 yaatal courant bi ci biir réew mi yëpp waaye tamit amal production bu toll ci 3000 mégawatts fii ak atum 2035